rapidement waaw Bouba il est là alors euh, Bouba Ndour. <laughs> Bouba directeur wala wax ni ma lay woowee ci biti comme ça madame madame Mbow gën a feebar. directeur ma euh, wax. na ngeen def. <laughs> message maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo directeur. nan laa lay woowee. Euh, ay noonu waay. <laughs> alors lui c'est Bouba directeur des programmes de euh, donc TFM alors Bouba euh, tey euh, dañoo fas yéene indi kon ñu bees sàq ci plateau yeewu leen ma bëgg kon nga ñëw ak ñun ci loolu. waaw jayna ba merci ginnaaw bi ñu leen nuyoo. Mhm. nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy yeewu di seetaan yeewu leen. Mhm. yeewu leen xam nga moom mooy ubbi télé bi. donc je pense que mooy. émission bi presque ëpp importance parce que moom mooy commencer. bien sûr programme mu télé bi. Mm-hmm. te à chaque fois dañuy bëgg di di ko beesalaat. Mm-hmm. di ko renouveler donc euh, temps yi yëpp ñuy liggéey si si beneen concept améliorer concept bi. Mm-hmm. parce que euh, option bi ñu jël ci yeewu leen mooy que euh, le matin ñu quand même yee nit ñi ak énergie ak humeur bu baax. ak ak yooyu yëpp quoi. te loolu dafa am importance donc gis ngeen ni Pape Cheikh temps yi yëpp. mu ngi jëloon vacances. ma mhm. ci profiter aussi di la féliciter. Mmh. franchement je j'ai reçu de de feedback. Mmh. par rapport ak euh, liggéey bi. Mhm. Euh, di féliciter aussi Bijou mhm. ak euh, ñëpp ñu fi nekk parce que Pape Cheikh dem na vacances mais aussi bàyyi na fi ñoo xam ne mat nañu ba mën a ko remplacer. vraiment ma leen ci féliciter mais aussi euh, comme dañuy dem ci fin d'année bi télé bi aussi il faut ñuy beesal. xam nga rek doo. Euh, même boo jiitoo macha allah sant yàlla. aussi doo doo nelaw. da ngay tout le temps di améliorer donc euh, ñuy fas yéene indi ay coppite même pas rek ci yeewu leen mais si. émission yi programme de euh, waaw ak ak ak yeneen. waaw ñu ngi ñu ngi waaw. waaw li fi ah. nekkoon parce que y a une base mhm. mais dinañ indi daal ay coppite duñ koy def lu bëri bëri bëri parce que xam nga aussi changement yu métti yi day mel ni da ngay près mhm. je pense que on est assez am na nu ñu yoon bu ñu tracé war ci jaar donc fii ak fin d'année bi effectivement nit yi dinañ gis ay changement si si si tele bi léegi yeewu leen lan mooy nar a nekk changement bi waaw yeewu leen donc euh, semaine bii di ñëw yeewu leen dafay jël euh, vacances pour une semaine pour incha allah ah yow suba teel bi. allez Bouba. ngeen ngeen mën a ngeen mën a noppalu. Uh-huh. Euh, pour euh, mais une semaine rek lay doon. Uh-huh. pour ñu permettre ñu dañu changer plateau bi. incha allah dem plateau euh, plateau bu bees ci espace bu bu bees. pour quand moom laay wax ni beesalaat tuuti. Uh-huh. indi ay rubrique yu bees ay générique ak ñoomin seen. xam nga rek xaw a xaw a taxawaat ko xaw a xaw a dugalaat tuuti. waaw euh, maanaam huilé waat mbir yi daal. ba mu gën a huilé léegi. Mm-hmm. waaw ci waaw waaw. ak. Ah. ak i oustaz. ah nee na i bu bees. i oustaz waaw yooyu yëpp dinañ yooyu yëpp dinañ ko xool. donc donc non non mais incha allah mais Alphie loolu moom dañ ciy taxaw moom. cuisine bu bees tàq lañ lay indi. loolu bu yu bees. incha allah non yu fi nekkoon kay dañuy dañuy dañuy dolli. waaw dañuy dolli renforcement lay nekk. Mm-hmm. xam nga bër Sofia moom moo jiitu. Mm-hmm. ñeneen ñi nag buuba woo leen nag woo leen ndax xam nga yeewu leen muy vitrine bi. Mm-hmm. fii la lépp di xewee. waaw mais bon mais boo bëggee sponsor yu bees yi di ñëw aussi il faut. ngay améliorer di indi lu bees donc je pense que. après fii togg yu bees <laughs> recette yu bees conseil yu bees. solo yu bees plateau bu bees. <laughs> waaw ah, waaw ak alfi bu bees alfi biy ñëw de moom alfi daal en tout moom ni muy changé man euh, personnalité moom dafa rek dafa sax euh, daal di bari alors man kañ Pape dama ko joxoon ay ay kii ah, ay ay nit yu normal mais moom Pape Cheikh am na lu mu wax nee na bi boo fi dugg ñaari baaraam ngay àndaal nee na booy ñëw ñëw moom li li ci yokk moom moo leen ko yéen ñi moo leen ko yokk <laughs> moo yàq ñëpp moo yàq ñëpp gars yi mais mais, mais c'est sa générosité ah du ñu du ñu tàyyi di ko wax c'est sa générosité parce que ñu bari bu ñu tenkee ci plateau bi. sa à dire que c'est parce que moom day am ñu nga xam ne da leen di gëm. Euh, mm-hmm. mu mu jiital leen ci ci ci liggéey donc a euh, franchement chapeau à lui. Mm-hmm. mais chapeau à Bouba c'est pa parce qu'il est là moo tax ñu koy wax euh, c'est un bosseur. Mm-hmm. et ça il faut il faut l'accepter ah c'est c'est tout simplement ça yenn saa yi mu xaw a kii mais sama Bouba la comme on dit. <laughs> ah bon waaw waaw donc euh, pour revenir euh, si <laughs> <laughs> kii bi ci décor yi ak programme yu bees yi donc je pense que waaw il faut que téléspectateurs yi xaar que ni aussi am na programme yu bees am na am na daal facette ak mhm. façade bu bees boo xam ne télé bi dina ko am euh, loolu su am na solo donc mhm. yeewu leen comme mooy ubbi ñu si donc euh, incha allah lundi bii di bu bi bii di ñëw bi si topp mm-hmm. ñu lancé mais après gàmmu bi lay nekk incha allah incha allah waaw après gàmmu bi rek on mm-hmm. on xam ngeen que ni euh, dama ciy profiter aussi di féliciter ensemble télé bi ak groupe bi si mm-hmm. taxawaay bi ñu taxaw si màggal Touba bi xam nga di nga def liggéey ba pare euh, yow doo ko xam mais nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ñooy jullit yi murit yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk un peu leadership bi muy sëriñ si vraiment ñu ngi leen di remercier parce que aussi woor nañ ñu ñoom ñëpp féliciter groupe bi euh, ak télé bi surtout taxawaay bi mu ci taxaw parce que am nga màggal Touba euh, TFM daf dafa am histoire ak moom même événement religieux yëpp d'ailleurs parce que euh, avant Euh, peut-être que màggal da doon am ñi fay ñi dem Touba rek ñoo ko doon dund ak ay extraits ci télévision yi fi nekkoon mais depuis télé bi ñëw gis nañ que ni nit ñi nit fu mu mënti nekk ci àddina bi day dund màggal bi en direct hmm. donc euh, te taxawaay boobu lañ nar a am kon ci lépp lu hmm. événement ci wàllum diine fii ci suñu réew ci ci ci réew parce que télé bi aussi da ngeen fàttali ko ni bi ñuy amee ay tolof tolof sax pour que mu commencé émettre nitu diine yi dañ ciy jàpp donc dañ leen di delloo donc Sénégal ñëpp xam ne nii diine daf fi am solo te dañ donc respect boobu ñu koy jox nag ñuy dem ci màgg euh, ci gàmm gi. Mm-hmm. aussi fas yéene aussi taxaw si taxawaay bu rafet. mais déjà am na TFM religion ñoom tamit euh, di ci am taxawaay bu am solo loolu nag di wane groupe Futur Média euh, fi mu teg diine bi fii suñu réew alors bu wax na ko dañuy def kon peau neuve incha allah kon semaine bi ñu dëgmal yeewu leen dafay rekk daal di am a bër incha allah est-ce que mën nañu am benn idée un peu bu ba ci rubrique yi nga xamante ni yu bees ñu fas yéene daal di indiwaat ci biir yeewu leen. wala c'est ah yow xam nga xam tu connais la réponse question boo xam ne nga koy posé xam réponse mais mais daal en di leen ñaaxaat aussi xam nga semaine bi nag mën ngeen ci noppalu. que boo leen ñëwaatee. Uh-huh. Euh, dina tàng dina métti. on cartonne quoi ah, ah, ah. déggoo ma de. mais noppalu xam leen di pour noppalu. déggu leen buuba pour ñu dem dallu ji. non non non pas euh, noppalu de parce que liggéey non noppalu noppalu ci antenne bi mais liggéey de base de bi moom la ñuy def pour préparer mais di leen ñaax rek ni quand ne bu ñu recommencer euh, du yomb de mhm. parce que xam nga teel a bi day métti donc euh, il faut ñu xaw a tegaat pression tuuti pour que nit ñi di teel a jóg parce que sénégalais yi dañu fonk émission bi. waaw fonk nañ ko torop parce que c' est la première matinale donc euh, du Sénégal loolu kon yàlla moom moo ko euh, daal di def di ñaan nag kon buuba euh, nu ñu ko waxee ci plateau yu bees yooyu lee ñu def ci liggéey bu mucc ayib ba lu ñu duppee ne miroir du Sénégal sénégalais mën a gis kon seen bopp à travers lu ñuy liggéey rawatina nag wax nga ko yeewu leen mi nga xamante ni moom mooy émission bu njëkk bu ñuy amal kon ci journée bi mu mën a kon li nga xamante ni moom la nit yi bëgg ci wàllum programme tamit liggéey bu am solo bi ñuy def chaque chaque jour fii ci télé bi. waaw merci donc euh, mm-hmm. di jox gars yi rendez bu effectivement. Mm-hmm. Euh, après après gàmmu après gàmmu incha allah euh, di leen jox aussi ci mois de décembre bi. Mm-hmm. yeneen yeneen yeneen surprise yu bees ay ay bagages mais quartier général kañ lay commencer. quartier général aussi dafay reprendre moment boobu. incha bu ñu jógee ci ci gàmmu gi rek. on reprend le petit théâtre ak yeneen yu bees. non le le petit théâtre c'est non non non <laughs> petit théâtre non c'est un autre dossier boo xamante ne incha ci euh, daal ñëw ah, mais Mati am na ay xeetu yu bees yu bëri yi nga xamante ni tënk nañ ko ci biir programme bi incha allah dana rek. Euh, daal di dina am fii ci télévision Futurs Médias